الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا السلام عليكم وتشكر صباح ci seen numéro 462 hmm, ñu nekkoon ci waajtaayu tabaski bi rek di ñaan borom bi defal nu ndox mu jàmm ci tool yi ñoo koy ñaan di ñaan mbokk yépp nañ ñaan yàlla wàcceel na ndoxum jàmm réew mi yitte woon nañ ko lool lool lool la ca tegu mooy mbokk mi nga xam ni moo doon wax ni bëgg nañ ñu daal defal ko ay irshadaat njàngalem lislaam ndax dimbalante dafa mel ni dafa jeex waaw li nga wax nag ci ojo bi ci waxtaan wi yaatu na lool waaye gis nga am na ci loo xam ni moom ginnaaw noo ko teg suñu bopp moom bu la ca mbokk mu la ca mën a dimbali dimbaliwul it daanaka taxul ñuy wax ni kooka deful la ko war ndax li nga mënul te xam ni mënoo ko lii wàcc na la yow doo def la nga mën rek yem ci waaye jël tabaski teg ko foo xam ni jël ngénte teg ko foo xam ni jël dëj teg ko foo xam ni <coughs> ngeen baal ci soñ mi yépp ñu jël ko teg ko foo xam ni xaalis bu baree bare moo koy def saa yu ñëwee te la ca lislaam wax jéemulu koo xam wala bu ñu ko xamee duñ ko def <coughs> dañuy topp jamono rek ak ñi ko man ak ñi ci nit ñi niñ koy defee boo amee dinga ko def boobu dinga ko def loolu kon mbokk mi ko jigee te nga jàpp ni moom war na ko mën a dimbali dimbaliwu ko bu ngeen toogee tey ji waxtaan mbokk mi bu sukkandikoo fa war a sukkandikoo mën a laa yey foofu daal lañ mën a yem ci wàllu googu mën na laa yey kon léeg nit ki tegoo loo xam ni yàlla tegu ko lislaam tegu ko ko lislaam tegu ko ko wax dëgg yàlla ab julit kon nañuy def lu ñu gis naa fii ay nit yoo xam ni li ñuy def nga xam ne mënuñu ca dara tey jii bu ñu gisee ku leen lebal ñu xotil seen doom yi piis bu seer comme ñi ko man ñu def ko bu ñu gisee ku leen lebal xar mu seer comme ñi ko man ñu jël waaw lu jëm ci tabaski bi yépp nga xam ne daal bis bi daal ah ni ko boroom alal yi defee moom it noonu la ko defee gis naa ko de loolu fu ñu ko te ñu ko teg loolu ñàkk a dégg diine la yu bëgg àdduna la ragal nit ñi te ragaloo yàlla la rek kooku moom am na yoo xëy jërul défendre nit ñi lañuy def lu ñu man waaw alxuraan wax na ko laa yukallifu llahu nafsan ila wusaha yàlla tegul jaam bi loo xam ne mënu def déedéet yàlla weesu na foofu waaw ah, yàlla foofu waaw kon mu ni waaw ndax euh, fajalante sunu aajo yi bokk xanaa kon war naa war naa doon luy tax nuy def bañ cee xool ba xam kii li muy def mën na ko wala mënu ko comme yow yaa ko war a dimbale rek nga dimbali ko loolu te ngi dugg lu mënul waaw xam nga fajal jullit aajoom yow julit bi alayhi salaam wax na ci lu yaatu dafa wax ni laysa bi muminin lasi yabiitu sabaana wa jaaruhu ila janbihi nee euh, julit boo xam ne dafa fanaan ak julitam moom lekk ba kël kël dëkkandoom bi <coughs> fanaanoo xiif nee na kooko nee na gëmul yàlla ki def loolu gëmul yàlla waaye day fekk nag jullit bii ak jullit bi moroom mi xam na ni kii de man maa ngi lekk bu suur waaye moom day xiif lay fanaane te mu man koo dimbali te dimbaliwu ko ñaar yépp ñaari condition yooyu waaw ñaari condition yooyu waaw te gis nga léeg-léeg am na yu mbokk yi wax boo ko gëstoo la na biir nga xam ne moo tax diggante ñaari mbokk yi nga xëy dañoo jigéen ñu bokk deret te mënuñoo laalante am na fuñ jaar foo xam ne rek ah fokk ñu toogaat ñu lijjanti loola ñu soog a duggantewaat su di jariñante ay ñoom ñaar donc ñu ko lijjanti ci réew mi leen dëkk waaw ci réew mi leen dëkk kon kii ñu laa wax ni danga koy dimbali te boo ko dimbaliwul ëllëg yàlla dina la sanctionné dëkkandoo la boo xam ni <coughs> wax dëgg yàlla gisoo ko muy yàq gisoo ko muy dugg ci lu mënul gisoo ko gisoo ko muy jëfandikoo lu araam ngir bëgg dund comme ñëpp su ko defee ku mel noonu nga mën nga ko dimbali waaye koo xam ni yow sa am na soxna mu wasin sa doom ju góor ni la yaay day dama bëggoon daal wut xar rek ak cinquante kilo pepp ñu togg laax ñu simple ko rek togg añu kër gi nga ne ko lu ci dal mukk waaw yaa nga am ay xame yoo xam ni yàggal nisër amu xew ci jamono yi nga toll donte yow caatlu nga juratoo waaye te jii nga gën a bëgg àdduna ndax ay ndawtal yoo ci yaakaar teg sa doom jooju fitna joo xam ni lam war na dépassé ci fanweeri junni man koo régler nga fexe ba taawil ko bu mu ëpp téeméeri junni <coughs> waaw nga bëgg càmmañam li nekk fële nag ñëw eh, eh, di ko jox xaalis moom maire bi ngir ngéntal doom ji bu ko deful nga ni kii dafa won te mbir yu ci bari noonu lay demee déedéet Sénégal gi aw xew li ñu ci dépassé amu ci xew wuñ ci yamale fa ko lislaam yamale du ceet du ngénte du dëj te ñett yi ñooy xew rek rek waaw yooyu yu mat a bàyyi xel <coughs> mu ni waaw dañ ko ni yàlla ëllëg dina wax ab jaam ni ko yow day diw ci àdduna dama tawat te seet si bi ma feebaree <coughs> waaw loolu am njàngale mu rëy la moo xam jullit bi war na ko bàyyi xel euh, hadis la bu wér boo xam ne alayhi salaam moom moo ko li te boo demee ci Sahih Muslim Abu Hurayra moo ko nettali waaw euh, alayhi salaam nee na borom bi subhaanahu wa taala ci hadiisul qudsi yi hadiisul qudsi yi nag mooy euh, hadis boo xam ne yàllaa ko yonent bi te jaarul ci Jibril bu dee hadis boo xam moo ko waxal boppam nag kooku mooy hadis hadisu nabawi yu mbaal nu ci baat bi mu ni yàlla dina wax ab jaam ni ko yaa ibna aadama maridtu falam taud nii qaala yaa rabbi kayfa auduk wa anta rabbal alamin yow diw feebaroon naa te seet si woo moon de jaam ni ko ah, yow borom bi naka man mii di jaam di la seetse te yow yàlla di boroom alam bi yépp qaala amma alimta anna abdi fulaana marida falam taudu amma alimta annaka law udtahu la wajadtani inda allahu akbar waaw xanaa xamoo ni Samba Faal moomu nga dëkkaloon sama jaam la moo feebar ba ni laaj ne këram ne hôpital xanaa xam ne boo ko seet si woon di nga ma fa fekk hadis bi nag buñ koy wax dañuy fàttali nit ki kon ndekete dund gi seeti ko wopp ci la bokk ci la bokk ndekete boo ko deful yaa ngi bàyyi loo war a def toujours nag dañuy bàyyi lu nu war a def di def lu nu wërta def nga ko hadis boobu hadis bu yaatu la bu yaatu la wax na ci lu bare bare bare bare bare bare ci diggante jaam bi nu mu war a nekk ci kaw suuf digganteem ak moroomu jaamam waaye li ma bëgg wax daal ci waxtaan wii mooy ñu bari lii nga xëy moom lañuy ñuy xase yi ñi ñi boroom alal yi boroom alal yi ne ci dëgg ci yenn yi ñi amul alal teg seen bët foo xam ne yàlla tegul leen ko loolu ku leen ci dimbaliwul loola taxul ñu boole la ci ñi nga xam ne du ñuy jullit de jullit bu am fu la dëgg-dëgg daanaka euh, lu muy dimbali nit ci farata ci la koy dimbale lu mu dundee lu mu dunde nag lu mu sol ca la bokk lu mu fajoo ca la bokk lu mu doxe yenn ajo yi dem ñëw yi yooyu yëpp maanaam ca la bokk waaye nag loo xam ni kii xam ngay munu ci dara waaye yaakaar lu ko nit ñi jox moo tax mu dugg ca ah, nga téye sa loxo ca loola loolu taxul taxul ñuy ñuy sanctionné jullit bi boole gi ndax daa gis lu ab dëkkandoo soxla mu man koo faj te faju ko déedéet kenn waxu la loolu mbokk bi waaw aleyhi salaam nee na <coughs> ablixu xaajata man laa yastatiixu iblaaqa xaajatahu fa man ablaqa sultaanan xaajata man laa yastatiu iblaaqaha sabata allahu xadamay ala siraatin gis nga na da ngeen di aajo yi ñi munte jotal seen aajo ci kilifa waaw ndax képp koo xam ne jotal na yi ku ko munta àggale ca kaw ci kilifa ya ah, dana dëgëral ñaari ndëggoom yii buy jéggi siraat nga xam ne du du tarxiis day dem ba jàll ba wàcc nag daal dem àjjana nag ndax siraat day yëngu tuuti dafa sew dafa ratax nga di ca jaar muy yëngu ba noppi tiim sawara loola ndimbalum yàlla dong moo mën a jaarale nit waaye du mën a yéeg du mën a dara même bu mel ni te yëngu sax yaatu lool mën ngaa daanu bu sewee ni kawar ci jaar waaw luy tax nag suñu borom mm, def nga mën caa jaar yàlla nee na mooy lu mel nii rek sens contraire ba nag mooy am dangay gis ku ne ci wetu kilifa lay ñëw ci ay leetar ay coup de ñu ñëw seen bopp te du àgg ci kilifa ko mu ëpp fuuf lay àgg ci kilifa ko day tànn ñi muy àggaleel ci kilifa ko soit ña koy ger wala ñam séntu ñoom njariñ lo rek bari na ku ne ci buntu kilifa diine walla kilifa àdduna yow yaa ngi yàqal sa bopp lu baree baree bari di yàqal nit ñi lu baree bare di yàqal sëriñ bi lu bari di yàqal kooka lu bari du ñëpp nag waaye bari na senegal trop waaye boo diglu addis bii ah wala xam ni ci li ngay liggéey ci li ngay yëngu ci nga mën a amee yàlla subhanahu wa taala waaye nga mën a ñàkk yàlla subhanahu wa taala waaw ah. kon euh, loolu la taski doon wax leeral ci mu ni nañ ko jox ay irsaadaat ci wàllu dimbalante xanaa dafa jeex déedéet salaam nee man massa fi xaajati axihi wa balaxa fiha kaana xayran min itikaafi asrina sanatin te wa man axtakafa yowman ibtiqaa waj allahi asa wa jalla jaala allahu baynahu bayna annaari salaasata xanaadiqa abaaduha baynal xaafiqayni gis nga ku dox ci aajuy benn mbokkum jullit ngir mu faju wa balaxa fi a kaana xayran ba aju jo faju day nee day def nga lu gën def li'tikaaf beru di jaamu sa boroom boobu ñuy def ci weeru koor ñaar fukki at nga def ko li nga defal jaam bi moo gën loola te nee na ku defal yàlla benn yow benn bis ci itikaaf nee na yàlla dana ko soreel diggam ak sawara lu mat ñetti xanaa di xa yoo xam ni moo gën a soree diggante penku ak soowu misaal gis ko ko kon fajal nit aajoom ay aajo joo xam ne nag jii <coughs> bokkul ak puuk yii koo xëy la muy def puukariwu la am pola jaxasoo góor jigéen la lu mën a ñàkk la loolu jullit bu xàmmee am alalam am na fanaan fu mu koy dugal waaw dimbalante nag moom waxoon naa leen ko ci jamono yële nu weesu ci année quatre-vingt yi jamono guddi lool góor gi doon def benn émission ci RTS tu doon bàyyi ji bi jaam kokki muy xel xalaat ñu di ko diglu guddi maag beneen wëlëre Masamba Njaay mu ni suñ Tuubaa feeñu na ko de nee na ko bu ñu demee ba naa nga at ci kanam dimbalante dana jeex ñun booba danoo kontaan ndax gis nañ ni booba jàpp na ni xaalis moom mooy bari rek ndax booba Senghor mi ngi fi nekk naa euh, l'an 2000 Dakar sera comme Paris waaw atum l'an 2000 bu ñëwee Dakar dina mel ni yi ku ñu wax euh, ku tudd xaw ma pàcc ko moom it euh, daana ko way di way wayu tudd l'an 2000 booba mu sori ci noonu lool waaye jàpp nañ ni bu ñëwee rek macha allah waaye gis nga ko tey jii bi bi bi bi l'an ñëwee ak léegi at mu ñëw gën a yées ma weesu daanaka ku ñu fal ba nga toog daanaka nga yées maanaam kala jiitu wan rek loolu loolu ñëpp seetlu nañ ko léegi nag kon ndekete góor ga lam gisan <coughs> mooy dimbalante li ko fiy jële mooy xol yi ci boppam jikko yi mooy yàqu jikko yi mooy yàqu def ngir yàlla la yàqu léegi mi ngi noonu àqi dëkkaloo kenn dutu ko sàmm kenn dutu ko sàmm nit ñi jël alal jiital ko bu boobaa jiital ko lañu war na jiital diggante àq yi boroom bi sàmmloo diggante nit ak moroomam diggante nit ak boroomam waaye diggante nit ak boppam yooyu yëpp dañ ko desal ginnaaw xool jamono rek benn bëtam bii mu yor muy masiw dajjaal muy alal rek moom mu fexel ba am ko mooy caabi ji mën a ubbi bunt yépp donte da ngay faatu sax ci géej gi ci àll bi ci désert bi wala bàmmeel bu sori waaye na nga ko am bu àggee foofu nag yàlla jël alal bàyyi ko suñu diggante mu nekk fitna suñu diggante nu jël ko di ci tojantey bopp kon waxtaan wi yem na fii rek waxtu waxtu di jeex na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.